constitution nga xam ne processus élection bi yëpp ci loxoom la nekk ba keroog proclamation de résultat ba keroog également prestation de serment mhm. donc foofu lañ toll tey jii et conseil conseil bu xesee ba tënku muy politique ba muy administration ba muy citoyen ba ñëpp dañ ciy tënku donc bravo à tous ces gens qui ont dès le départ cru euh, au conseil constitutionnel ak liñ ci mën a wax yëpp mais man ne woon naa tant que c'est ce conseil constitutionnel on avec c'est vrai ak lépp luñ ko mën a waxal ak lépp lu mën a xaw la ñu xam ak la ñu la ñu xamul yëpp. Mhm. tant que conseil constitutionnel bi moo fi ne on fera avec et finalement même le président de la République s'est rangé. Mhm. ba mu euh, waxee ne dem leen ngeen dialoguer lu ngeen mu proposer après ñu décider. ñu décider proposer ko mën na leen ah balaa ma ci bañ a réeroo xaaral ma xool ak conseil ñu teg foofu nga teg sa baaraam rek ñu déglu euh, euh, Bougane Gueye Dany kàddu yi mu yëkkati ñu dellu siwaat léegi incha allah. je euh, mais je suis appelé à accomplir mon, mon devoir citoyen donc moo tax ma ñëw pour voter euh, pour comme tout bon citoyen bokk ci ñiy tànn euh, li am solo nag e message bi may lancé aussi ci ñëpp mooy ñu xam ne y aura qu'un seul vainqueur benn vainqueur mooy am mooy Sénégal et bu ñu ci génnee it démocratie Sénégal donc la ñu war a lu dooleel ko ba euh, li ñu fi dund ñu bañ ko dundati euh, ñaan yàlla kii ñëw jikk senegal kii ñëw am taxawaayu defar senegal kii ñëw yërëm ñi mu jiite ngir euh, li ñu bëgg ci réew mi mooy tawfeex mooy naataange loolu mun a am senegal yàlla may nañu lépp li ci des nag mooy am ay nit yu bëgg réew mi yu patriote yoo xam ne seen yéene dul dara lu mooy jafe-jafe yi askan wi dund ñu teggil leen ko et loolu nag ñu bañ ci boole benn populisme ak benn démagogie voilà. acteur politique nga waaye tamit observateur nga ci huit rek léegi lan nga nemmeeku ci développé. alors euh, là il est quinze heures quinze euh, seize heures presque mais euh, li ma gis mooy quand je suis venu j'ai vu que le, centre était vide j'ai posé d'ailleurs la question la moo xew euh, peut-être que xëy na soit nit ñi dañu teel a ñëw wala. Euh, facteur koor gi également il faut ñu boole ko ci mais euh, remarque bi ma njëkk a def mooy le centre est vide alors qu'en général c'est un centre euh, boo xam ne buy bari nit la muy euh, Liberté 5 centre la bu bu daan am en tout cas affluence euh, donc woo nit ñi ñu génn voter génn accomplir seen devoir citoyen parce que nag njiitu réew la ñuy tànn et il ne doit pas être mal élu parce que ëllëg mun na ko rattraper et ñun ñëpp dañu ci am responsabilité di ñaan yàlla dëgëral Sénégal yàlla jàppale waa Sénégal yàlla laq Sénégal jërëjëf. mu ngoog euh, kon yéen ñi nekk ci plateau bi Simon. Euh, Yacine dégg ngeen li nga xam ne moom la président xadi euh, colonel du moins président Bougane Gueye Dany wax ginnaaw bi mu accomplir li nga xam ne mooy devoir citoyen am ñëw ci fi nga xam ne mooy bureau de vote am jël nag comme ni ko ko yoon mayee xam nga ak réforme yi léegi moom am nga droit jël euh, lu toll rek ci cinq bulletins waaye moom dafa préféré jël le les les dix huit candidats yëpp dem ci urne bi ñëw dugal enveloppe am def tout le tout le processus fii comme ni mu ko remarqué lu fi lu fi am la Asma Khadija ko témoigner mooy euh, centre bi dafa mel ni euh, dafa dafa xaw vide. waaw centre bi dafa mel ni dafa xaw vide mais bu fekkee ni dañu sukkandikoo si fajar ba léegi gis nañu mu nekkoon en mouvement est dû au mois de Ramadan wala sax euh, impact li nga xamante ni moom moo di une bonne organisation électorale peut-être aussi loolu mën nañ ko nemmeeku ndax avant da nga daan gis sax ku voté ba pare toog xaar ambiance vote mais ci weeru koor la ñuy nekk donc nit ñi dañuy sonn et cetera mais ñi nga xamante ni voté guñu génn guñu voté dañ ñu génn seen biir kër ñëw di voté ci euh, point de vote yi nga xamante ni moom lañ leen jagleel ndax euh, dañuy tànn seen président mu di njiitu réewum Sénégal te mat na ànd ak cawarte ndax niñ te loolu sax mooy mooy mooy message bi nga xam ne euh, moom la président Bougane Gueye Dany joxe bi mu defee le constat que ne am na benn benn affluence yi manqué na fii ci centre de vote bi appel bi mooy sénégalais yi nañu génn élire li nga xam ne mooy seen cinquième président conséquence bi muy bañ mooy un président mal élu mooy koo xam ne moyen wala yu mel noonu ci pourcentage nga am te li ñu faral di gis ci histoire politique au Sénégal mooy premier euh, mandat bépp président euh, à partir de cinquante huit euh, soixante pour cent lay dem jëm jëm kaw bon appel bi président Bougane Gueye Dany daf ginnaaw bu mu accomplir li nga xam ne mooy soo devoir citoyen mooy woo rek képp kuy sénégalais nga génn ñëw sa bureau de vote kon xam naa dañuy delloo antenne bi ñoom Khady colonel Simon ak ak ak ñu ni mel voilà. merci beaucoup euh, euh, Khalifa Ndiaye di remercier également Asma Khadija mi mu àndal ak reporter ak correspondant yëpp yi nga xamante ni euh, depuis ce matin ñu ngi ci terrain bi ñoom itam ci xiif bi ci naaj bu tàng bi lépp ngir bañ dara rëcc leen ci scrutin bu tay bi si fi fi ma la tegloo loo woon sa baaraam mën nga ko teggi <laughs> waaw euh, si si c'est vrai parce que boo xoolee ñun fi ñu jóge mhm. ñun fi ñu jóge ba ba tàbb fii tey dañuy dañuy sant yàlla remercier waat une fois de plus le peuple sénégalais ñi nga xam ne am nañu maturité pour dem élection naka tey jii fi ma nekkoon mooy euh, ñaari pôle yi nga xam ne ñoo téye woon processus bi et finalement ñëpp ci la ñu tënku mooy l'exécutif à travers le président la République qui doit prendre certains décrets et ce qu'il a fait ak le conseil constitutionnel mi nga xam ne élection bi ak fa mu jóge woon depuis les parrainages moom moo ko téye lépp lu mu ci mën a dogal ci la ñuy tënku bi ñu ko ne élection yi mënul nekk le 2 juin comme ni ñu la ko proposé il a ko mu jalaat décret def ko tey jii sachant que le 24 bi ñu toll moom ci boppam neuf jours moo ko desee au pouvoir te dina dem te amaana du xam kan moo koy wuutu. Mm. Euh, boobu di benn deuxième bi mooy campagne électorale bi d'habitude c'était trois semaines. Mm-hmm. mais bi yoon deux semaines lañ ko def. Euh, on a eu un petit débat autour de ça mais finalement c'est parce que le conseil constitutionnel tout le monde s'est rangé ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, moom moo war mën a am ci processus donc ça veut dire que waxante nañu xiiroo nañu ŋaayante nañu joxante nañu kàddu jokkalante nañu def nañu lu ne mais finalement le Sénégal a su retrouver son génie bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon pour se retrouver autour de l' essentiel et autour de l' essentiel aujourd'hui mooy lan mooy dem nañu élection ba fii sant yàlla amul lenn loo xam ne war na mën a tax ba ñu mettre en doute euh, la fiabilité du scrutin euh, ñu ñaan nag mu continuer euh, mm. beneen aspect bi également bi ñu war a mën a mettre en exergue c'est que le Sénégal également de tradition dañoo yàgg di organiser élection surtout surtout le commandement territorial l'administration territoriale mm. le bras technique de l'État par rapport euh, à ça euh, le ministre de l'Intérieur pour preuve yàggu fee ñëw le nouveau Mamadou Mactar Cissé un Niger un homme très méthodique parce que seen liggéey seen profil loolu la laaj mais n'empêche avant moom peut-être bu réussir li on dira également bravo à maître Sidiki Kaba bi nga xam ne moo ko jiitoon au poste on dira également bravo à l'administration territoriale on dira bravo à la direction générale des élections ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo sek le processus électoral l'organisation le déroulement et bravo également euh, au peuple sénégalais peut-être yenn couac yi mën a am autour des cartes d'identité parce que le débat a suscité euh, benn instant autour de euh, de Kër Massar. Mhm. parce que Kër Massar avec le découpage administratif bi ko dap en tant que département il y a quelques années euh, gisoon nañu une certaine situation aux législatives aux législatives il a fallu rééditer toutes les cartes d'électeurs du département. Mm -hmm. parce que circonscription bi changé na carte électorale bi na Kër Massar est devenu département. des zones yoo xam ne jëlee nañ ko fii dugal ko ci beneen commune y' a des zones yoo xam ne bàyyi nañ ko ci département bu bu bu Rufisque mm-hmm. a des zones yoo xam ne peut-être ba léegi ñu ngi diggante Guédiawaye wala Pikine mais situation boobu moom moo xaw feeñaat naka tey jii qu'est-ce qui peut l'expliquer on dira que peut-être les gens ne sont pas allés récupérer leur carte d'électeur mais carte d'électeur itam li ma ciy wax mooy mm-hmm. pas-pas ak yéene ba nga amoon pour dem nga ne defaral leen ma carte d'identité passe-passe boobee également na la jiitalaat nga sonn ci pour mën a retrouver sa carte pour mën a également dem jëli ko mën a dem voté ji loolu également autant autant de sujet mais vraiment pour l'instant sant yàlla euh, xaarandi également ci kanam bureau de vote yi tëj euh, on peut-être euh, d'autres situation d'autres lectures mm-hmm. leneen